mu Cheikh Mat Fadal Mbakke mi nga xam ni sëriñ bi dénk ko université bi mu ànd koo ki bokkam di ko liggéey su ko defee nun ñëpp ñu déglu ko sëriñ bi bisimilah bisimilah Mbakke bisimilah jàmbaar nga gëm nga sëñ Bamba sa yaa ngi liggéey bisimilah Mbakke.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 alxaji Macky Sall njiitu réew mi ak mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ak mboolem jullit yi fi teew ak mboolem bokki taaliba yi ak mboolem ñi ànd ak ñun jataay bi di yëkkati kàddu ci ndigal lu cheikh Mouhamadinil Muntaqa mu wax ne nañu ñëw fekke ci jataay bu tedd bu màgg bii ñuy war a mottalee ayu gi nga xam ne dañ koy defoon ci gëstu ak jàngat ak nafaraat liggéeyub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo tax ko nuyoo bi ak cant yi ak ñaan yi dama koy bàyyee Serigne Mouhamadul Bachir mooy wax ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa damay jëfe ndigalul Serigne bi li wax ne jataay bi dafa dugg ci liggéey bu mag bi nga xam ne moom lay defal tu moom lay def Touba muy université wala mu jàmma wala complexe Cheikh Ahmadul Khadim pour l'éducation et la formation sëriñ bi wax ne liggéey bi ñuy def lépp foofu lay dugg ndax liggéey boobee la ko tax a jóg mooy sàmm yaatal ndono ak njàngaley Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu te loolu mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi léppam lislaam la léppam diine la léppam sallallahu alayhi wa sallam la kon bu wax ne bu ñu waxee turaas wala jeexit wala li fi sëriñ bi bàyyi loola mooy rek lu sallallahu alayhi wa sallam ndax ca njëlbéen rek la waxoon ni moom li ko tax a jóg mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lxara wa indi ahmadu loolu la tàmbalee ab liggéeyam te loolu la sax sallallahu alayhi wa sallam nag nis koy donne wala nis koy wuutee mooy borom al anbiya al ulamaau warasatul anbiya waaye anbiya yi deesu leen dolle wurus ak xaalis ak alal xam-xam lañ leen di donne ak jaamu yàlla mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu am fi ayu bés gu yaatu nag gu am solo di jàngat li nga xam ne mooy li fi sëriñ bi bàyyi muy patrimoine boobu mën nañ ko wax ñaari xaaj la bi ñu mën a teg loxo ak bi nga xam ne mëneesu ko teg loxo bi ñu mën a teg loxo itam ni ma ko waxee rek lépp mooy lislaam photo yii nga xam ne moo doon jëmmal jataayu ayu bés gi lépp day dellu ci diine sëriñ bi di teg xeeru juma sëriñ bi di julli kon loolu dellu na ci lislaam wa anna al masajida lillah inna salata kanat ala al muminina kitaba mawquta wa aqimi salata li dikri wala li dikra kon sëriñ bi foofu ñu ko wone mooy fi mu nekkoon mooy diine foto bi ñu njëkk a gis moom itam baraag bi nekk ci gannaawam jàkka la kon kuy kuy fàttaliku sëriñ bi yaa ngi fàttaliku diine li fi des ci lu ñu teg loxo ci lim fi bàyyi ba tey ay jumaa la jumaay njaareem ji nga xam ne moo ko tabaxaloon boppam jumaay tuuba waaye daaray kaamil ba ci masaalikul jinaan ji ak mu jàmma Cheikh Ahmadul Xadim waaye kër sëñ tuuba yi ci àddina bi Cheikh Mahamadul Muntaxa góor yàlla daan wax naan mooy këri lislaam te doolu sëriñ bi moo ko waxal boppam wajaal buyuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakunu sajida kon kër sëñ Touba yëpp ay jàkka la ay juma la waaye ndonoy sëñ bi dëkk yi mu sanc Touba ak Daaru Salaam bu ci nekk day delluwaat ci yàlla tur wi rek tawxiid ji ak delloo borom bi li mu moom la bokk na ci daarul mannaan daarul quddus daarul minan daarul mu'ti fépp foo xam ne sëriñ bee ko sañcoon wala mu joxe ndigal ñu sañc ko day delloowaat ci lislaam laka daaru salaami rabbi wa tuuba li yakun rabbi fihima daahuduni kon patrimoine sëriñ bi biñ mën a teg loxo lépp dafay delluwaat ci lislaam dellu ci donn yonent bi ak roy ko sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga xam ne mën na si jot ak loxo mooy li nga xam ne immatériel la loolu itam sëriñ bee ko waxal boppam nee na sama ndono mooy alquran ak xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te alquran moo boole mbooleem xam-xam yi kanzil kitaabu wal xadisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu dahab waaye nee na sama ndono sama patrimoine li koy saxal mooy alquran ak xam-xam ak xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xidmati alkitaabi wal xadisi yathbutu laa bi dahabin mawrusi kon sëriñ bi ku koy fàttaliku yaa ngi fàttaliku lislaam yaa ngi fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw nag ci jamono joo xam ne dafa toll Cheikh Mouhamadulil Muntaqa ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér liggéey bii mu yëkkati muy liggéey boo xam ne dafa fekkoon mu jóge ca sëriñ ba jóge ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaati sahabatul kiram sëriñ bi nekkoon ci ànd ci ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la yar ñi wër ñu ñu ñëwoon ci moom di wut yàlla loola rek moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha loola na ñëw yëkkatiwaat ko muy taal boo xam ne mës sa fay waaye mu fëggewaat gillin ya fenqewaat ko yokkaat ci matt mu gën a bérex bérex mooy mu jàmmax Cheikh Ahmadul Xadim wala complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi ñu doon wax nga xam ne biñ koy waajal dañ ne woon modèle wala système éducatif bu sëriñ bi la ñuy waajal te boobu mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon bu yaatu boo xam ne bi mu ko yëkkatee wax nañ ko léegi ñëpp dañ ko ànd ak moom ñëpp dañ ko ànd ak moom kon jàpp naa ne ni ma waxoon léegi ci cant gi ak yooyu dama koy bàyyi Serigne Bachir moo koy wax waaye mu doon lu yaatu loo xam ne jàpp nañ ne bépp xam-xam bu am njariñ bàyyi nañ ko xel képp ko war a jàng bàyyi nañ la xel lépp lu ñu war a jàng lu am njariñ bàyyi nañ ko xel ànd kook ni ma ko waxee ay téeméeri téeméeri téeméeri nit ñu waajal ko fi ñu tàmbalee nag mooy alxuraanul karim daaree alxuraan joo xam ne gone yi bu ñu fa defee ñeenti at dañuy mokkal alxuraan bind kaamil ca nañ ko doon jàng bu njëkk loola fii mu nekk ni juróom-ñetti téeméeri nit ña nga fa waaye li ci kéemaan ne bi ñu tàmbalee léegi matagut at te ña nga xam ne fa lañ dale woon baa siin miim am na ci ñoo xam ne am nañ fukki xisb ak juróom loolu sëriñ daar yi xam nañ ne baaxoo wuñ koy gis nit daana dal daara ba am at fer i jiga di sogo rafet wala bu amee benn xisba ñu ne jàmbaar la fii ne am na fa ñu am ñu fa am fukki xisba ak juróom ñi daloon soog faa ñëw ñi ci xawoon a sori am na ci ko tari barki dem waaye dafaa indaale woon àllewu ji xaw a sori am na ci juróom wala juróom-benn yoo xam ne wàcc nañ kon njàng ma sëriñ bi da koo gàttandul boppam waaye moo waxoon ne alxuraan mooy léppam alxuraan bu fekkoon lu ñu jaay la jënd naa ko bu fekkoon lu ñu maye la may nañ ma ko moom yàlla mi ko moom bu fekkoon ne lu ñu saraxe sarax nañ sarax nañ ma ko wa tamanan wali yu diw mu nafaqa kon daara ju mel noonu bu nekkee ca Touba du fa du fa du fa du fa du fa lu fa tumuranke waaye nag lu am solo la am na fa njàngum xam-xam daare xam-xam joo xam ne niñ doon jàngee sëriñ bi daan ko jàngalee daan ci yar nit ñi noona lañ fay jànge xam-xam loola itam ma ngay sori bu baax a baax waaye ñu tollale ko jamono dañ doon jàng nañ doon jàng bu njëkk waaye jumtukaay yi nga xam ne jamono da ko indi te nit ki war koo jariñoo yooyu yëpp dañ ko fay dañ ko fay jàngale te ku ne xam na sëriñ bi lim tënke woon yoon wi mooy al ilmu naafiu wal amalu saalih wal adabul mardi loolu boo ko den boo ko tasoon rek mooy al imaanu wal islaamu wal ihsaan mu noon daara joo xam ne sëriñ bi wax na ne borom bi subhanahu wa taala moo ko ko defal ni ko nu ñu waxee léegi jiitoo bil mustafa liban al quddusu man madrasatan biha yasulul ada wal jahlu wal kabadu ci tënk rek ngir baña a guddal sëriñ bi foofa itam am na fa njàng mu kawe moo xam ne mooy nag li ñuy wax université barkeeluk Cheikh Abdoulaye laxat mu ne woon damay defal sëriñ bi ab université moo tax université la wax waaye liñ tënk defe nañ ne ni ñu ko waxee modèle la wala système lu yaatu la bu ñëw ci université bi am na fa ñeenti UFR ñaar yi nañ at mi jiitu ba valider seen année yeneen ni ci des maquette yeeg programme yeeg syllabi yu lépp def nañ ko ba incha allah ci weer wii danañ ubbiwaat yeneen ñaari UFR bi ci jiitu mooy UFR étude islamique ak langue arabe macha allah ñu ngay jàng bu baax lañ doon jàng ci biti waaye dëppale ko nag ak njàngalem Cheikhul Khadim radiallahu anhu mi nga xam ne moom la nu moom am na fa UFR santé UFR de sciences et métiers de la santé loolu docteur Khadim ñu ngi lay sant macha allah xam nañ ne loolu itam bu am solo la validé nañ ñoom itam seen benn année ñaari UFR yi ci des mooy métier et technologie bu ci nekk am na ay banqaas yu baree bari ci biir damay bañ a guddal am na UFR agronomie waaye am na institut supérieur des des langues et livre boo xam ne moom itam dana tàmbali ci fan yi ak yeneen i kii yu bare bari waaye centre de formation professionnelle ku ne xam na ne ku wax sëriñ bi wax métier wax formation professionnelle njaareem doy na ci misaal jàpp naa ne ministre de la ministre de la formation professionnelle soxna yaakaar naa dana bàyyi xel loolu këru njaareem li ëpp ci liñ mënta ñàkk foofu lañ ko doon liggéeyee waaye nag sëriñ bi defaraale ci société bi ndax booba fekk na métier ñu daan am ñu koy moom sëriñ bi wane ne ñëpp war a am métier inna akramakum indallahi atqakum ak eh, ñu baax ñi ku ci nekk amoon na métier ar rasul alayhimu salaam al anbiya wa rasul ku ci ne amoon na métier sallallahu alayhi wa sallam nag boole métier yëpp ndax métier moo doon jàngale innama baastu mualliman sunu borom wax ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal xikma xam-xam daal di ñëw ak jàngale kon sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngale kat mag bi ku doon sallallahu alayhi wa sallam nag da nga koy doon ci jàngale loolu moo tax mu doon jàngukaay bu am solo boo xam ne mën nañu wax ne bàyyiwul dara centre de formation professionnelle boobu nag ñi génn ci daari alxuraan ji mën nañ faa jàng métier. ñi jàng ci majalis ba noppi mën nañ faa jàng métier muñ bëgg électricité plomberie luñ soxla waaye ñi mësuta dugg daara sax mën nañ faa dugg ñu jàngal leen fay métier. ñi jàngoon métier ba noppiit mën nañ faa duggaat ñoom itam yokkaat seen xam-xam loolu nag kon cant gi defe naa ne Serigne Bachirou laa koy laa koy laa koy bàyyee kon daal ngir bañ a guddal ñu ngi sant di gërëm di wax ne Cheikh Mahamadul Muntaxa daal nee na lii dafa dugg ci biir liggéey bu mag boobu yi nga xam ne mooy liggéeyub Cheikhul Khadim bi nga xam ne mooy ñëw rek ngir yeesal yaatal njàngalem sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi tam ko wér tàggale yéenam yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu yam